mbokk yi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp di ñu seetaan ci télévision bu mag bii di tey nag ñu am mbégte ak kontaan te àndaat ci beneen jotaay waaye tey ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Mame Cheikh xam naa sax kenn du ko présenté mbokk yi ndaxte xam nañ ko bu baax a baax mu nekk nit koo xamante nii euh, nit ku brave la waaye tamit nit koo xamante ni ku am engagement la tey moom lañ fas yéene waxtaanal xam naa nag du ma guddal dama koy jox rek mu nuyu ak yi su ko defee rek ñu mën a waxtaan wi Mame Cheikh ngi leen nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi maa ngi di fay mhm. di wax asalaamaaleykum euh, c'est juste avant que may wax may wu mhm. Euh, jamono maam Cheikh Ibrahima Fall Gueye. Mhm. Euh, ñu gën ma xam ci maam Cheikh Toucour. Euh, nekkoon fii régisseur centre commercial bu ginnaaw raay amoon damay nuyoo. Mhm. Mhm. macha mu ngi noonu comme ni ngeen ko déggee moo nekk maam Cheikh Gueye ñu gën ko Ibrahima Fall maam Cheikh tey dañuy ñëw waxtaan ci li nga xamante ni mooy ci jëmmi maam Cheikh waaye tamit waxtaan ci fonction yi nga xam ni jot na ko jaar fii ci ginnaaw raay Nord surtout ci centre commercial bi maam seex en tant que régisseur. ci li ñuy njëkkee mooy lan mooy régisseur ba pare balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw may ñëw di wax luy régisseur. Mhm. cest à que régisseur moo nekk nit ka nga xam ne euh, moo nekk agent boo xam ne moom rek moo apte. Mhm. Euh, di di di yor maanaam koomu koomu koomu commune bi. Mhm. maanaam yaa nekk régisseur moo nekk quelqu'un ba nga xam ne. Euh, lépp loo xam ne koomu commune bi la rek. Euh, si sa loxo la war a jaar avant que muy muy dem trésor. Mhm. voilà voilà mu ngi noonu ci leeral lu gàtt muy euh, li nga xam ne mooy rôle régisseur tey ji nga nekkoon régisteur ci centre commercial bu ginnaaw raay mu mel ni bu yàggul dara dégg nañ ay détails yi nga xam ne jot na fa jaar euh, bi may njëkkee nag ci détails yi mooy lan moo waral lekk tey ji nga jógee ci centre commercial boobu nga xam ne mooy bu ginnaaw raay waaw may ñëwaat rek <coughs> di wax li tax ma jógee ci centre commercial mun naa ne bari na. Uh-huh. bari na trop. li tax ma war ma jóge fa mhm. euh, xam naa ci biir waxtaan bi dinaa fi ñëwul dinaa si indi ay points yu bare bëri li tax mhm. li tax ma quitté si centre commercial bi mhm. euh, may njëkkee leen rek li ma fi njëkkee mooy euh, la fois passée dafa mel ni ginnaaw raay ñëpp ñu ngi dégg li amoon ci ci ci ci centre bi mooy que bureau sama bureau bu ñu dajji woon mais nag li tax ma quitté fa si si li loo tax ma ju quitté fa sax loolu si la bokk ci la bokk waaw mais avant loolu bëggoon nañ fa quitté avant loolu bëggoon ngeen fa quitté mais ba léegi ñëwaloo ñu lan moo tax ngeen quitté fa ndaxte bëggoon nga fa quitté quitté am na lu tax nga quitté fa mais kon damay ñëw rek jaarale noonu dugg ci question boobu nga xam ne mooy sa bureau mel na ni daaj woon nañ ko jamono yee ba jël fa benn somb xaw a takku mm. ndax mën nga ñu ñëwalaat ci fee yooyu waaw loolu sax moo yoo ko tax ma ma ma quitté mm-hmm. parce que man dama gëm ne nit ah. ak nu mu ku mu munti doon soo ko dénkee alal wala nga dénk ko loo xam ne post la mm-hmm. mu war faa liggéey mm-hmm. euh, pour man su ko ndogal dalee yow njiit bi. Mhm. yaa ko war a njëkk a taxaw. protéger ko voilà protéger ko. Mhm. su ma nee taxaw nag waxuma taxaw financièrement. Ah. mais c'est juste yëg. Mhm. yëg man ñu ngi daj sama bureau la nuit du 22 décembre. dañ daj sama bureau. bañ ko dajee le matin dañ ma yeesi man dañ ma yeesi sama kër. ñoo daj nañ sa bureau man je pensais que ay blague la quoi. Ah. Euh, après ma dem exactement ma egg fekk ñu daj bureau bi. ba ma yeggee. avant que may def dara comme que amna kilifa. mo mhm. wo sama kilifa. muy moussa le maire. Mhm. wali Ndiaye. ba ma ko woyé automatiquement la la mo wax ana sécurité yi fu ma répondre ko ne ah man dal ñu nañ daj sama bureau. donc dañ ma yé wax man daj nañ sama bureau. Mhm. après mu ma da ngay dem commissariat man ma dem ma demal sama bop commissariat. man ma déposer sama plainte. Euh, m'a def déclaration plus plainte. Mhm. Euh, numéro numéro déclaration présidente bi mu ngi nekk 2343 euh, du 22 12 2023. maanaam commissariat bu ginnaaw raay après ñoom ñu ñëw euh, def constat yi photo def li ñuy def yëpp après nag ibbi enquête. voilà. mu ngi noonu mu doon ay ay leeral yu am solo waaye tamit ba léegi enquête bi yow mën nga lan nga ci mën a wax maanaam ci la nga xam ni moo tukkee ci enquête yi. waaw ba léegi police mi ngi def enquête am. ba léegi mi ngi def enquête am. Mhm. raison pour laquelle sax moo taxoon. ma ma ma ma xawoon noppi. Mhm. Euh, lu bari waxum génn ma pour leeral. waaw loolu moo taxoon lu lu lu mu nekk si loxol yoon moo tax ba léegi. Mhm. yu bari bëgguma see bëgguma si woon. Euh, juux mhm. c'est-à-dire bëgguma si woon wax waaw léegi euh, bi nga xamante ne maanaam vol boobu am na en tant que régisseur lépp nekk ci sa loxo lan moo ci nekkoon taxawaayu maire bi maanaam sa digganteek moom dangaa fay wala après nan la demee waaw si loolu sax laay ñëw Euh, mooy mooy ñàkk taxawu bi. Mhm. ñëw ma man man dama nekk nit koo xam ne euh, ku ma dénkoon fukki dërëm su réeree avant may wax kenn dama koy jéem a lijjanti fay. Mhm. ba pare léegi may remercier rek may remercier quelques agents yu fa nekkoon. Mhm. may remercier Gaston. Euh, Gaston Mendy. di remercier aussi Ndefat Diba. surtout ak Ifto. ñoom Ibrahima Faye ñu gën ko xam si Ifto. ñoom ba affaire bi amee ba ba ba le 29 tooguñu. tooguñu ñoom ñu ngi dugg fu nekk ñu ngi dem fu nekk pour que rien que euh, affaire yi feeñ. ñu mhm. ko nekk xam na réalité Sénégal. sa alal su réeré di nga dugg fu ne di nga def lu ne. rien que mhm. pour pour xam ñu ko jël ak lenn. mais tamit euh, si loolu yëpp ba affaire bi ba ba comment dire ba xaalis bi réeré. Mhm. man première réaction wu maire <coughs> lenn la nañ fay moo nekk première réaction am nañ fay. en tant que maire. waaw na fay. c'est-à-dire que na régisseur bi fay. Euh, man man. réponse bi ma ko réponse bu ma ko bu ma ko bu ma ko wax mooy que man suñ ma fayee ko ma fay suñ ma fayee ko lu ma fay. Mm-hmm. donc te alalu commune bi la moom ma ko te depuis que ma nekk ginnaaw raay nord. am mm-hmm. yéene amoon yéene defal ginnaaw raay ba léegi si yéene yooyu laa nekk. Mm-hmm. Euh, donc du ma seetaan alalu ginnaaw raay di di di di réer su réeroon si keneen sax ma am ko dama koy fay waxtuma laak mu réeree si man. Uh-huh. Uh-huh. mu doon lu am solo waaye tamit la moo ci nekkoon taxawaay ki nga xam ni mooy euh, directeur centre commercial bi comme moo leen fa jiite woon. waaw en tant que directeur. je mhm. euh, suis newul dara C'est juste comme le maire que le maire ah, juste que le maire def. Mhm. parce que soit on a des du secret administratif ah. uh-huh. donc ñu dajji bureau. bureaux ce la. Mhm.

le 21 bi maa ngi yóbbu maa ngi quitté sama bureau ay 14 heures 15 heures. Mhm. laa quitté sama bureau. Euh, ñu amoon mu nekkoon jour bi ñuy def investiture euh, Amadou Ba. Amadou Ba kin mhm. faat mhm. ma jël sama oto yóbbu yóbbu la maire. Wadjojo Ndiaye euh, kin faat mais nag ba dem yeggul. bañ demee bay waaj a Euh, côté fii euh, Grand Théâtre mhm. On Timbo Timbo ko président installé par kon donc ma continuer mu ma euh, conseil économique et social moy mhm. environnemental ma conseil économique Du fa ma aussi si goudi gi ma mhm. déposé ko parcelle ñu parcelle déposé ko kër

Je raay. Mhm. ko suis ma dem dem euh, donc euh, le 22 si fajar. Mhm. ay 10 h yooyu noonu Gaston ñëw yeesi ma. Mhm. ne ma maam nañ bureau man je pensais que day black. mais nag euh, ma dem fekk ñu daaj ci bureau bi. automatiquement ma comme que kilifa gi ma première réaction mooy que fan la sécurité yi nekkoon ma ne ko ah man daal daal nañ sama bureau mu ne ma kon demul police. Mhm. ma def ma dem man maa demal sama bopp police. ànd mhm. ak euh, sécurité bu ma fanaanoon muy euh, Ibou Faye ak Gaston. Mhm. ñu ànd commissariat euh, ma def déclaration police plainte. kon maanaam su ma la déggee bu baax day mel ni jour bi loolu di am ñaari sécurité ñoo fa monté. non sécurité yu fa doon yu fa doon monté dëgg la ñuy doon guddi gi bëccëg gi benn des fois trois. bëccëg bi benn. mais centre bi ñaata port la am ba deux sécurité di monté par guddi. centre bi am devanture bi deux portes côté bële am benn après quatre port am na quatre portes ak miiram yu gàtt. ci deux gardiens. si si si deux sécurité yu fay fanaan. Mhm. Mm. Euh, maanaam leeral yi am na solo mais kon yow maanaam jour bi nga xamante ni ci la ñuy daaji sa sa sa bureau la maanaam ci journée bi yendu woo fa yaa ngi meer yéen ànd si seen i parcours. ay 14h laa fa quitté 14h 15h laa fa quitté yóbbu ko kii pour ñu ànd dem kin fat mhm. mujj noo yegg parce que dañoo ne ko dañoo ne ko président mu xas na installé dootoo dugg. donc mhm. ma nekk si ay parcours am ak moom. Mhm. Euh, <coughs> ma jëmaa ko jëlee marché poisson yóbbu ko. Mhm. mu ngi noonu leeral li hamutoni solo ngir ñi xamuton ni yefi kon mam Cheikh leral nako ni la yefi demee waaw ma ngi dégg aussi ay rumeur ay rumeur yu bari ah. ma ngi dégg rumeur yu bari nan non ba da euh, comment dire je bureau bi bañ koy dajji lii wak li donc. ku nek indi version waaw ku nek da indi version mais nak duma ma leen ko bañal. Ah. parce que nit mom liñ ko wax rek la mëna japp jàpp. allah ba ba ndayu mbili gi mëna mëna mën lu mhm. bari bëgguma ci won bëgguma ci won dugg. Mhm. parce que ba légui ni ni Euh, problème bi mu ngi euh, enquête bi mu ngi daw. Mhm. enquête bi mu ngi daw parce que man en tant que jeune. en tant que doomu ginnaaw raay juddoo fi màggee ba toll ni ma toll du ma nangu kuy salir sama sama sama sama der. Mhm. parce que plainte bi man maa ko déposé. pare wu ma pour retirer ko. Euh, centre commercial bi bu yàggul dara am na ay vidéo yoo xamante nii génn nañ ko ñu wane situation centre bi ni mu mel. Mhm. ndaxte ku gis centre bu toll noonu ci ginnaaw raay. ay gis na ko. Mhm. ni mu meloon avant ñuy ñëw. Mhm. ba ñu ñëwee may saluer aussi euh, sama frère sama xarit. Mhm. muy l'ancien régisseur bu fa nekkoon muy Cheikh Omar fouti wital mbeng euh, def na si liggéey bu am solo. Uh-huh. def si liggéey bu am solo moom jóge na fa après man ma nekk fa régisseur man tamit def naa fa liggéey bu am solo. waaw si augmentation recette def naa lu nekk mais tamit liggéey dafa dafa nekk ne liggéey soo koy def. il fallait que nga nga nga. say say say kilifa jàppale la pour liggéey bi sotti. Ah, dooleel la mais rek sooy liggéey. say mm-hmm. kilifa mel ni ñu lay ñu lay xoqatal. Mm-hmm. mel ni ñu bëggul nga am résultat yow jëmm ji. Ah. donc résultat du mën a am. du mën a am day metti ah. waaye tamit ba léegi demee di si centre bi ndax loolu tamit lu ma la. Euh, mu mel ni Cheikh Omar moo la fa jiitu woon. Mm-hmm. ñu gis mu toog fas diir jóge fa. yow nga ñëw. lan moo waral loolu dëgg-dëgg li tax maanaam kenn mënta toog liggéey euh, correctement ci biir centre bi. Omar. dafa nek nit ko xamné mhm. euh nit ku dëggu la. Mhm. doxul doxul si lu ñak fayda. mom nek nafa amana askan wi do nga ko ñor. Mhm. te aussi population ginnaaw raay ñoko ñor. comme aussi bam fay nek euh, en tant que régisseur man maa nekkoon assistant donc ma ngom moom ñoo fa nekkoon mu mu euh mom mu xey dem donc amna maanaam si biir waxam am na am na am na lu ñu digaloon ak population bi defuñu ko looloo tax mu quitté moom. Mhm. d' après d' après d' après yu ñu jot. lan ngeen digoon population bi. c'est-à-dire ne daa avant mhm. ATT yi fi yi fi nekk. Mhm. suñ si suñ si su si maire jëlul ay matuwaayam. d'ici trois mois day quitté. Uh-huh. donc ATT yi ba léegi kenn waxu si dara raison pour laquelle bokk na si tax mais du du à 100 pour cent bokk na si tax mu quitté moom. mais kon yéen bu fekkente ni yéen a doon xeex ATT yooyu ngeen di wax. Mhm. avant ngeen di nekk au pouvoir tey jii nii yàlla dogal ngeen ànd ak monsieur le maire ba yàlla jox ko mairie bi yéen ngeen nekk ci domaine boobu noonu te ba léegi li ngeen di xeex maanaam mënta lijjanti ko kon est ce que nekkul ni ñooñu dañoo am dëgg. non du ma ne am nañ dëgg du ma ne aussi amuñu dëgg. Mhm. mais tamit euh, daa am Le le maire je suis conseil municipal. le mhm. conseil municipal non parce que maire bi fi maire bi fi nekkoon. Mhm. de bokk parti mais lu am ci si si si du c'est-à-dire qu'il y a ay ay municipal. fi cantines ci ci aussi même si fi gouvernement. Euh, Waly Ndiaye nii. am na ñu fi amoon ñu fi am cantine. Mhm. te raison pour laquelle man damaa jàpp ne loolu moo tax euh, Waly Ndiaye parewul pour soobu si si si si soixante onze cantine yi. Mhm. may may lancer message aussi population Guinaw Rail leen aussi euh, soixante onze cantine yi fi nekk. Mhm. alalu commune bi la. te te war nañ jël seen matuwaay pour de pour mu delluwaat si si si si commune bi. mais est-ce que tamit en tant que doomu ginnaaw raay taxawaay bi ngeen taxawoon di pour ci jamono pour pour mu leer est-ce que amaat taxawaay boobu noonu ci jamono yu waali ngir leeral ko ba léegi. waaw parce que ñun bañ ñëwee man ak Cheikh Omar ak yeneen agent yu fa nekk. Uh-huh. avant que directeur bi di fi nekk. Uh-huh. ñun dañ doon def pour pour pour information ñan ñoo moom ak ñan ñoo moomul. Uh-huh. ba ñëwee pour tej ay quelques cantines mais des fois da ngay ñëw le maire en personne mo lay wo nan la ibil diw ibil diw donc man mun naa ne complice la si si si si si si si si si affaire ci affaire yi. Mhm. mu ngi nonu ma leen di fàttali ba légui ñu ngi togg ki nga xamni moy mam Mame Cheikh Gueye ci sen euh, télévision bu mag bi di télécommune nee naa leen lépp loo xam information la rek ñeel commune bu Guinaw ray Nord euh, xaar len ko fi ci. Euh, tey Mame Cheikh ba légui dañuy dess ci li nga xamanteni moy centre commercial bi bi ngeen di ñëw. ñaata ngeen fekkoon li nga xam ne maanaam moom ngeen mën a récolter par mois ak tamit ñaata ngeen ko yóbbu maanaam bilan bi nga xam ne yow sa diggante sa maam sa bopp liggéey nga ko fa. waaw man moom lu may ñëw pour wax rek. Mhm. mooy que ba ma doonee régisseur mi ngi nekk euh, mois de février. février ba décembre. naa recette bu ma collecté. Mhm. mu ngi toll si. 45 millions 826 45 euh, millions 835 mille 500. Mhm. nga récolté ci. ci ci 2023 euh, bi. c'est-à-dire que février 2023 à décembre 2023. 45 mhm. millions et quelques. 45 millions 835 mille 500. Mhm. Euh, chiffre am solo est-ce que tamit ba dit que je ñëw ci li nga centre commercial lan mooy seen relation yow ak Bira balaa ñu ñëw ci euh, sa diggante Moussa. non Bira Bira lay lay euh, mën naa ne. Bira lay suñu suñu suñu frère la ah. Mm-hmm. suñu frère la. Mm-hmm. Euh, ma koy saluer de passage maa ngi nuyu Bira. di di di di di ko remercier aussi. Euh, maanaam lu olof di wax rek. nit di nga di nga yor dara doo ko xam. Hmm. mais soo ko ñàqee nga koy xam. ñun dañoo préféré woon sax bira des fi que que que am beneen beneen beneen beneen euh, gestionnaire comme comme ki fi hmm. Hmm. Ah, comme li nga wax sànq day mel ni leeral nga wax ji waaye tamit su ma la déggee bu baax a baax lan mooy sa digganteeg Moussa ba tax ngay waxee noonu. non c'est-à-dire que mag amuñu problème. maanaam man dama nekk nit koo man soo nekkul nit doo nekkul nit dëgg soo bëggul dëgg mënoo maa bëgg. Mhm. te aussi dafa centre commercial dafa nekk alal boo xam ne du alalu papaay kenn. Ah, alalu population suñu moomeelu ginnaaw raay la. Mhm. donc moomeelu ginnaaw raay ku ko di ku ko mhm. donc maag yow mënuñoo mënuñoo mënuñoo dëggoo. mënuñoo jëm. raison c'est-à-dire que juboo à 100 pour cent quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi nga defal ñu bala pour ñu génn ci diggante boobu noonu rek dañuy wax maanaam jot nga liggéey ak Bira jot nga liggéey ki nga xam ne mooy Moussa moom mi nga xam ne mooy actuel DG. ñoom ñaar kan nga jàpp ni maanaam moo ci ëpp taxawaay ci liggéey bi. waaw ci cadre professionnalisme. waaw man moom li may li may wax. Mm-hmm. si si diggante Bira Leye ak Moussa. man je préfère je préfère euh, ba kii comment dirais-je Bira Leye parce que. Bira lu mu bon bon bon bon bon dégg naa lu ñu ko fi jëlee mooy que <laughs> d'après le le maire lu mu wax. Mhm. daawul jot information. mais aussi administration administration pour man du doxee du doxee comme ni que li fi ki kii ku fi ne. li muy mhm. li muy doxalee administration. Mhm. c'est-à-dire que kilifa warul kilifa daa war di boole mais pas muy muy muy xaajale muy xaajale mhm. euh, biraale lu mu metti metti euh, su su gisoon ay agent yu yu jubawul mhm. dañ leen woo pour jubale leen waaw ki fi ne nag moom en personne mooy jéem a euh, ŋaayoo ak ay administra ak ak agent municipal am yu fi nekk mhm. mm. mu mel ni loolu noonu jot naa ci écho boo xamante ne ni Moussa ak sécurité yi nga xam ne ñoo fa nekk am nañ ci tuuti difficulté ba waral tax sax ñu am ñu dàq ngir jëmi Moussa est-ce que loolu tamit jaadu na ci administration waaw mooy li ma la wax rek njit moom dafa war a tëddee ñaaxaanaay ñi mhm. euh, du mat njit dafa war a tëddee ñaaxaanaay maanaam dafa matul njit mhm. Moussa Sy boobu moo matul njit mhm. waaw loolu raison yooyu moo tax ma ne ma ne Bira lay moo ko moo ko parce que Moussa Bira une fois dafa doon dafa doon dafa doon boole ay agent wam pour que ñu nekk benn dañ doon woote réunion tout le temps pour ñu toog bureau waxtaan mais ki fi nekk nek na fi ba ma jóge fi mhm. su su su problème amé c'est-à-dire que tout wootee réunion rek problème xaliss mo am mhm. wala wala dara ah, ah, mu doon ay leeral yu am solo waaye tamit ba léegi dañuy des ci centre commercial bi xam bi moy laaj bu mujj ci biir centre commercial bi est-ce que centre bu toll ni ñu defi plus de 3 milliards mhm. est-ce que jaadu amul sécurité bu doy na sax ay caméra surveillance waaw loolu moom so maanaam sécurité yi si boppam. Mhm. li jotoon indi seen problème sax si centre bi. Ah. dëgg-dëgg ay caméra de surveillance la. ci la bokk ci la bokk. Mhm. ay caméra de surveillance la c'est-à-dire ñoom euh, gis nañ ni am na recette bu fay dugg. Mhm. tuddee ko <laughs> d'après ñoom duñ ko tuddee recette occasionnelle. Uh-huh. maanaam amul si fenn recette occasionnelle. <laughs> ñoom lañ ko tuddee recette occasionnelle léegi. Euh, sécurité yi demandé wuñ pour ñu jox leen ñoom seen xaalis pour ñu def seen poste mais dañoo demandé que recette bi fi génn. nañ ko jëndee ay caméra de surveillance. Mm-hmm. ñu jox leen ay promesse defuñu ko ñu joxal leen ay promesse defuñu ko ñu joxal leen ay promesse defuñu ko ñoom nag ñu ne carrément euh, recette bii di fi dugg. Mm-hmm. te te jëmul xamuñu ñoom fu mu jëm. xamuñu ñoom fu ñu jëm ñoom dañuy taxaw ne benn moto du dugg ci centre bi. Mm-hmm. ba keroog ñu leen di wax lu leer. donc le gestionnaire ak le maire ñoom ñoo jël seen matuwaay ne carrément agent yooyu noonu déggaluñ leen mais pour man. agents yi ñoo nekk si dëgg. kon man su ma la déggee fi mu ne nii mel na ni instant yi benn nit rek moo nekk di doxal ci biir centre commercial bi. waaw benn nit moo fa nekk di doxal jusqu'à présent centre commercial bi mu toll amul régisseur depuis que ma quitté fa centre commercial ginnaaw ren ndoor amul mais loolu tamit est-ce que maanaam du indi ay luubal parce que loo xamante ne amul organisation amul ko koy gérer. waaw ma ne mën na ci am. waaw en tant que régisseur moom fay nekk. agent yu fa nekkoon di luubal. mu am luubal waxtuma la ba fa am ba mu amatul régisseur. waaye ba léegi nag damay des ci li nga xamante ne nii mooy euh, actualité ci biir commune bi uh-huh. euh, balaa may dugg nag ci wàllum politique wala ci wàllum gestion dañuy wax ci li nga xam ne mooy recette yi nga xam ni euh, mooy nekk ci wàllum ci biir commune de Guinaw Rail donte bëriwuñ ay mais centre commercial bi ak la uh-huh. lan nga ñuy wax tey ci recette yi nga xamante ni ñu ngi koy am waaw recette yi moom lu ma si wax uh-huh. mun naa ne maa gën a placé wu pour pour wax si en tant que régisseur li may wax si recette yi mooy Guinaw Rail noor le maire en personne. Mhm. jéemul chercher dara dara lu indi lu indil ginnaaw raay recette. Uh-huh. jéemu ko chercher c'est-à-dire que chaque jour man dama ko doon wax naan ko maire ginnaaw raay recette am war na dépasser fii. Mhm. donte ne donte ne maa ngi ci doon def liggéey bu am solo donc. Euh, mënuma recette bi 2021 collecte euh, SGP cantine 27 million la woon. 2023 mhm. euh, bi mu doon 35 et quelques. Mhm. Euh, man ma ñëw yóbbu ko ba 45 presque 46 millions. Mhm. donc donc. maanaam lu may lu may yokk daal ñoom pare wuñ pour soxla wuñ kuy soxla wuñ liggéeykat. maanaam lubalkat lañ bëgg soxla wuñ liggéeykat. macha allah léegi man li ma bëgg a xam mooy. yow li nga doon jël di ko verser trésor maanaam recette bi daan jaar ci yow di dem trésor luy jógee ci centre commercial bi la wala luy jógee ci commune bi Guinaw Rail bi yëpp non man li ma doon verser

ñun ñoo waroon ginnaaw raay yëpp campagne. Mhm. ne moom mooy profil bu gën. Mhm. mais nag dañoo nekkoon ay ndaw. ñoo nekkoon ay ndaw te ndaw moom su xasee bëgg rek bëgg na. dañoo xamul woon. c'est-à-dire mhm. que monsieur monsieur Ndiaye muy wal jooja. lim ñu wan lim ñu wanoon avant ak lim ñu wan c'est diamétralement opposé. waaw est-ce nekkul ni mën naa ko tuddee ni dafa war waa askanu ginnaaw raay. waaw mën nañ ne wor la Mhm. mën nañ la war la parce que li parce que en tant que maire. Mhm. yow ñu say agent sax pour ñu jot la téléphone leneen la waxtuma la ak population bi ñi tax ñi ñi ñi la ñi tax ñu jël seen carte. Mhm. Euh, sànni la ko. pour pour téléphone waxuma la gis de téléphone rek. problème la pour nga gis pour nga gis Waly Ndiaye. en même temps euh, ay say agent yu ngay liggéeyal. dañuy am problème sax di la woo. Mm-hmm. mun duñ la mën a jot. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, lan mooy problème bi ba ginnaaw raay boo ko xoolee da nga naan dafa retard ndax boo xoolee suñuy naataangoo wala suñuy dendandoo wax dëgg yàlla ñu ngi teg ay jéego di jëm ca kanam fa nga leen bàyyi woon daaw boo ñëwee ren fekk nga ñu avancé lan moo tax ñun mënuñu avancé boobu ba léegi. waaw li tax mënuñu mënuñu avancé mooy que à chaque fois ñun ñoo xëy teg suñu bopp cest à nit ñi day ñëw gëm ñu loo xam ne newul si ñoom. muy comme la wal jooju Ndiaye lu mu def. moom war la ñu carrément su ma man man man man am personne. Hmm. waa jooja Ndiaye ba may ñëw si moom. man daf ma daf ma ne ma am naa ay partenaire hmm. su ma faloo li wëg lii li wëg lii lii wëg lii hmm. même programme am bokk naa si ñu ko doon ñu ko doon ñu ko ñi ko ñi ko ñi ko saisir donc euh, li mu ñu wanoon nag li ñu gis c'est diamétralement opposé li may wax mooy que ñi ko wër nag maanaam dañuy bëgg lu ko neex. Euh, Wally def na li Wally def na li Wally def na li deux ans te man musul dégg Wally Ndiaye inauguré na. Mhm. waaw kay ci loolu laa doon ñëw <laughs> ndaxte yow bokkoon nga ci ñu ko jege woon ndaxte wax dëgg yàlla ci liet naaw mi nga bokkoon euh, yow fi mu ne nii yow mënoo ñu wax dara ne Wally moo fi def lii bi mu toogee léegi. waaw mooy la ma la wax rek. mooy la ma wax léegi. Euh, ñi ko wër. <laughs> ñu mhm. bëgg li ko neex. foo waxee ñu ne Wally Ndiaye moo fi def lii moo fi def lii moo fi def lii te deux ans. et quelques kenn musul dégg Waly Ndiaye inauguré na. presque bientôt mandat jeex. waaw te musul inauguré kenn musul dégg Waly Ndiaye inauguré na. Mhm. waaw maa def moom yomb na mais da ngay inauguré. ñu xool waaye tamit ñu gis ni wax dëgg yàlla Waly nekkoon na nit koo xamante ni. mën naa ne ginnaaw raay ñëpp ko taxaw woon mag ñeeg góor ñi paay ndaw ñi ñëpp taxaw nañ ko mu mel ni tey jii ni boo day xool ñi ko faloon bu fekkonte ni 500 personnes lañ tey mën mooy war bu njëkk rek mooy war bu njëkk parce que uh-huh. ñun ba ñuy mën naa ne Waly Ndiaye bi si ñi ko fal uh-huh. euh, moom des fois day toog naan non jeunesse ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey euh, jeunesse bi ñu siy soo xoolee au total. ñi ko uh-huh. fal ëpp nañ plus euh, ñi ñu doon liggéey ñu ñu doon liggéey matuñu sax matuñu sax une centaine matuñu ko. Mhm. ñu doon liggéey si commune bi yëpp matuñu cent. sawaruma sax di wax si si si jëmm jooju. Mhm. maa nekk si Moussa sawaruma di si wax. Mhm. parce que maanaam li may dëkk di wax rek. mooy que matul njiit. maire da ko faa indi mais matul njiit cest à que wal jooja Ndiaye à chaque fois euh, mooy war may wax moom lay war population bi rek. parce que yaakaaruñu woon ni. Euh, Moussa dafa ñëw fekk ñuy liggéey liggéey bu am solo si centre commercial bi. Euh, mu ñëw kase kaserine bi yëpp. c'est-à-dire que en tant que régisseur. Mhm. dama doon jël sama xaalis sax jënd benn lampe su ma jëndee benn lampe da koy naqarlu. donc mhm. donc jëmm jooju parewul pour liggéey centre bi. Mhm. c'est-à-dire que bëggul koy def résultat. jëmm ji bëggul koy def résultat. des fois ma jël sama xaalis débouché ay canal. mais da metti te loolu moom moo ko waroon def. en tant que gestionnaire moo ko war a def. am surveillant. dafa am surveillant may may may wax centre bi daal li fa des moo bari cest à que. avant que sax may wax sama waxu jël sama xaalis. Mm-hmm. balaa avant ñu jël daj sama bureau. Mm-hmm. man luma ci luma ci wax moy que defna binna bind naa plus de trois trois lettres de démission. Mm-hmm. mais agent ay agent yo xamné ne leer na leen ne man suma ma quitté centre ba. euh centre ba dem en faillite. Uh-huh. ñooñ noonu ñoo tax ñoo ma doon forcé na ma lettre de démission yi bi ko joxé lu si melni garçon euh Ibou Socé. ak yeneen agent ñoom ñoom bari nañ daal. Mm. mais bu weesoo bu weesoo maanaam li nga xam ne daj nañ ko sa bureau. Mm-hmm. lan moo war a mën a tax rek nga bind sa lettre de démission pour pour démissionner. waaw mooy mooy li may faral di wax rek. njiit soo mm. jiitalee sa njaboot. Mm-hmm. suñ nekkee si si naqar. Mm-hmm. pour man da leen war a taxaw si naqar surtout loolu. man bañ dajee sama biro le maire taxawuma woowuma lijjantiwuma. moo raison yooyu moo tax ma ne carrément. Euh, kii du du du du kilifa. Mhm. parce que man dama gëm ne kilifa su su su sa njabootam. Mhm. su nekkee si naqar. au moins mën nga yëkkati sa téléphone sax woo ko. Mhm. dëfal ko. voilà mais nag suñu borom dimbali na ma may remercier euh, Mous monsieur Moussa Moussa Dieng. troisième au maire moom jàpp na si. Euh, Alpha Diop aussi jàpp na si bu baax a baax. waaw. Euh, léegi loolu nanga nga ko dundee en tant que nit koo xam ne dañoo dajji biroom jël fa xaalis boo xam ne du alalam mais alalu mbooloo la nanga ko dundee ndaxte su boobaa lu nekk di nga ko dégg. waaw jusqu'à présent maa ngi dégg lu ne. Uh-huh. jusqu'à présent maa ngi dégg lu ne. Uh-huh. Euh, ba kilifa gi sax kilifa gi ci boppam man mooy li ma waxoon réunion rek bu gedd dem. Uh-huh. li ma waxoon réunion mu toog ma gedd dem mooy que. njiit su demee ba yàq deru deru deru ay agent am mhm. kooku matul njit mhm. mun naa ne li population bi di wax yëpp xam nañ sama jikko mhm. euh, centre commercial bi man dama am yéene woon dama amoon yéene yóbbu ko fu sori te maa ngi woon si tànk yooyu euh, donc su problème su problème amee su problème amee njiit bi kilifa gi ci boppam moo waroon moo waroon yëkkati téléphone am taxawul agent am ni mu ko war a taxaw mais yëkk téléphone sax mu woote wu ko. Mhm. Mhm. ayca mu ngi noonu ba léegi rek ñu des ci li nga xamante ne mooy entretien bi waaye euh, maam Cheikh mu mel ne bu yàggut dara gis nañ ki nga xam ne mooy monsieur le maire Waly porte plainte ki nga xam ni moo di Yvetot nekkoon ku ko jege wax dëgg yàlla en tant que nag monsieur le maire nga war a protéger sa population boo demee ba leen yóbbu ci yoon rek je pense que y' problème nan nga gisee loolu. Euh, nit moom su matul njit rek ah. matul njit mhm. donc soo demee ba yóbbu say njaboot iftaw mun naa ne njabootam la mhm. iftaw dem na ba mook wàl jone Njaay doonatuñ ay agent municipal ak patron am mhm. euh, papa ak doom la woon dëgg la nit moom su demee ba yóbbu doomam si yoon kooku matul njit loolu day firndeel rek problème ba ma amee problème nu ma seetaanee donc day day firndeel li mu def iftaw Ibrahima fay Euh, sa njaboot soo demee ba di ko yóbbu si yoon mhm. si loo xam ne jarul sax yóbbu poste Thiaroye bii nga koy jàpp sa agent sa sa doom sax laa wax du ma ko tuddee agent mhm. Ibrahima fay dafa nekkoon nit koo xam ne da jaral mu xeex ak ku ne ndax Waly Ndiaye mhm. soo tuddoon Waly day mel na tudd da nga kaa sax lay wax iftoo bëggul ko laal Waly donc soo demee ba di di di yóbbu sa njaboot si yoon donc man man man pour man sa njaboot dafa waroon nekk si jafe-jafe nga dem taxawu ko waaw macha allah mu nekk lu am solo bu weesoo loolu ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy askanu ginnaaw raay nga xam ne ñu ngi lay topp booba léegi. waaw. Mhm. may lancé askanu ginnaaw raay rek. Mhm. Euh, di leen xamal ni en tant que jeune. Mhm. nekk doomu ginnaaw raay. Euh, juddoo fi màggee fi defee fi li ma fi defee yëpp ma leen di wax ne leen nekk fi aussi en ancien régisseur. du centre commercial de ginnaaw raay nord. Euh, li ma leen di rek mooy ñu ñu. prochaine fois suñu demee bay tànn. Mhm. ñu xool njiit bu ñuy tànn. Mhm. ñu xool ku juddoo ginnaaw raay màggee fi defee fi lu mu fiy defee yëpp mais waxuñu kenn koo xam ne euh, day jugee xaw ma euh, fu mu jógee ñëw ñu koy jox suñu réew c'est-à-dire que dañu daa nax population bi uh-huh. nax na population ba jël ko mm-hmm. les population bi nañu am fulla ba ba ba ba ba jëlee ko fi moom c'est-à-dire que mm-hmm. yi ñu ngi ñëw mm-hmm. am naa ne parewul bu bokk sax uh-huh. moo tax suñu borom teel ko xam mu teel a xam boobam ne élection yi ñëw du ma bokk xam na ne su bokkee du am du am dara macha allah pecc mu ngi noonu ba léegi rek ñu daal di des ci commune bi waaye tamit maam Cheikh mu mel ni dégg nañ fii euh, fii ci commune yu Guinaw Rail ay agent municipal wala ay conseil municipal yoo xamante ne nii fayee ñu ngi fayeeku te liggéeyuñ amaana sax du post boo xam ne jox nañ leen ko pour ñuy liggéey mën a fayeeku mais dañuy fayeeku ci loo xamante ni liggéeyuñ ko loolu lan nga ci xam. waaw loolu moom loolu moom agent municipal yi nekk si si si commune bi. Mhm. di di fayeeku te te liggéeyuñ. Mhm. loolu moom mun naa ne ñu ngi koy dégg si commune bi. te aussi man en tant que régisseur nekkoon aussi quelqu'un ba nga xam ne euh, dama jege woon SM bi. donc loolu moom lu ma si xam bari na trop trop trop. kon loolu mën nañ ko dëggal wala dañ koy weddi non loolu mënuñu ko weddi parce que dëgg la dëgg la dafa am mhm. ay conseil municipal yoo xam ne ñu ngi fayeeku mhm. seen maanaam fayeekuñ seen tur c'est-à-dire ñii seen turu jabar maanaam fayeekuñ directement mais indirectement voilà dañuy fayeeku indirectement c'est-à-dire que ñii seen turu aussi seen seen seen seen seen même seen turu doom mhm. aussi agent municipal yoo xam ne dañoo toog seen kër ñu tudd leen agent municipal te mënuñu ne lii la ñuy liggéey si centre bi si si commune bi cest di dire que ñoom suñ fin du mois ba fin du la ñuy ñëw Uh-huh. fayee ko si am aussi ñoo xam ne aussi seen tur a ngi si si liste bi ñuy fayee te fayee si commune bi uh-huh. te te ñoom xamuñu sax ndax seen liste a ngi si liste bi ñuy fayee si commune maanaam dañu utiliser seen tur pour di ci fayee ko te xamuñu ko ñoom voilà mais est loolu jaadu na non mais jaaduwul uh-huh. jaaduwul ku xam ginnaaw raay nu mu toll ginnaaw noor maanaam euh, pauvreté bi fi ne. ginnaaw raay noor recette bi recette bi nu mu nu mu nu mu baawee ñu doon def la tout pour recette bi yëg. Mhm. ngay ngay ngay ngay ngay def loo xam ne luy luy daanalaat suñu recette la. Mhm. yow loo xam ne loo yow xoolal raay noor lu mel. soo xoolee département Pikine yëpp ginnaaw raay si gën a bon. ginnaaw mhm. raay si gën a a a ah, a bon si gestion yu nekk ginnaaw raay yëpp. ci ci bi yëpp. waaw inondation bi su ñëwee doo soo voyage woon sax doo doo doo xalaat. doo xalaat lu dul ginnaaw raay. Mhm. donc loolu noonu waroon nañ am njiit bu am yërmande. Uh-huh. di yërëm population bi que que que ngay def ngay que ngay yoo xam ne. Mhm. maanaam maanaam. sabotage mhm. daam lu ñu doon bañ avant. daam lu ñu bañ avant. mais dañoo. li li fi li fi ne li fi ne moo gën a moo gën a yées li ñu doon bañ. Ah, ci loolu laay ñëw mu mel ni li fi nekk gis nañ ko ñëpp teg nañ seen bët tey ji lan ngay def ban comparaison ngay def ci diggante Pape Niambé Dieng mi nga xam ne mooy maire sortant ak Waly waaw Pape Niambé moom Pape Niambé ak madame moom xam naa ne. Ah. ñoom moom amul ma leen waxul ci lu ma leen waxul ci àdduna. Ah. Euh, amul lu ma leen deful aussi. Mhm. mais nag dama nekk nit koo xam ne euh, ginnaaw raay daf maa jaral. Mhm. ginnaaw raay daf maa jaral man nañ bokk ndey ak baay soo doxul lu yoon wala defalul yoon dama koy wax euh, Euh, général dafa tollu fo xamné so soo wax rek population bi dañ nan non dafa bokkoon ci gestion bi. Mhm. génn motax muy wax. mais su boba dañuy xamni deug ngay kassal mais mais nak population bi daa am ñu nangu deug am ñu nangul deug mhm. même aussi may ñew si si si may may may delluwaat tuuti si centre bi. Mhm. di len xamal né tok na conseil municipal am agent am conseil municipal bu taxaw né maire euh, euh régisseur ak gestionnaire bi wuñ donc da nga len wara a Mm-hmm. mais ñoom ñu certé lan moo tax. régisseur ak gestionnaire bi jubóowuñ. Mm-hmm. ñu ko certé. Euh, ma ne leen en tant que régisseur euh, nga ne gestionnaire nga di def loo xam ne du sa donc du ma jubóog yow. Mm-hmm. yooyu moo taxoon man ak gestionnaire mënuñoo jubóo donc ay gestionnaire gestion su demee bay signé ay protocole d'accord yoo xam ne kenn yëgu ko. fin du mois jot ñu la kay fay yow en personne. mu jëm ci poosam nga xëy ngay dugal sa poos yooyu noonu yooyu noonu yooyu laa doon xeex mais nag dama nekk nit koo xam ne toog nañ toog nañ kër maire man leen maire man ku am sutura laa moom mu toog maire toog ma ne ko maire am na loo xam ne mu ngi daw si commune mais jéemoo lijjanti jéemoo lijjanti lan hmm. hmm. a hmm. moo nekk si biir problème bi uh-huh. xam nga olof Ndiaye def ne ku wax feeñ ak tamit li nga xam ne servi ko commune bi sax même bu doon la koy fayal wala sax ñu bàlloog en tant que doomu commune bi te xam ne ñu ngi perte lu ëpp loolu ci loo xamante ne jëmul ci doomu commune bi non maanaam la wax noor laa pare pour servir mhm. donc su ndogal amee ndogal dal sama kaw donc ñu seetaan ma maire le maire en personne seetaan ma euh, man mané ne tamit lu yokk tax ma mané dama kay fay sax parce que mun naa ne euh, en tant que régisseur soo demee trésor lu lay wax. Mhm. liggéeyaloo commune ñun ngay liggéeyal. donc raison yoyu motax mané mané man ma xey fay. donc ñom touriste percepteur xamul xamul xamul maire jël xaalis. xamul xamul xamul comment dire xamul xaalis da nga don verser ci ñu keuf ko. xamul ndax da nga def sok xaalis bi xaalis bi ñu jël xaalis bi. percepteur xamul lolu percepteur lu mu xam quittance sam la dag nga ko da nga kay verser ci. donc nit ku xam lolu euh du du seetaan ñuy ñuy salfañé salfaañee alalu commune Guinaw. macha allah waaye tamit amna ci sama question bo xamni ba légui dafa mel dang ko daw xamna naa su ma ko posé. dinañ ne Modou mi day politique wala day fayantoo. mais ba légui waxo ma sa digënté Euh, analyse entre Pam Niambe ak que entre Pam Niambe ak uh-huh. si si si si si jusqu'à présent day day day day day day

damay xaar ba kooku toog diw toog man leen kat lii est-ce que yaa ko def. mais mm-hmm. non automatiquement diw moo def. non kilifa du mel noonu. mais euh, mm-hmm. mais nag lu jëm ci gestion Pape Ñambe euh, ak ak ak. ak wal Waly Ndiaye. Mm-hmm. Pape Ñambe moom mun naa ne mun naa ne euh, depuis mu nekk fi muy ba mu fi nekkee maire Pape Ñambe Dieng donte ne comme lu ma doon wax laay wax ba léegi. defalul ginnaaw raay dara. Mhm. Euh, Pape Ndiambé lañ dégg Pape Ndiambé jaay na cantine Pape Ndiambé def na lii Pape Ndiambé def na lii donte ne Waly Ndiaye déggaguñ mu jaay cantine. Mhm. mais aussi pour man ñun dañ kaa fal pour que li fi Pape Ndiambé doon def mu leeral ko. Mhm. donc euh, man pour man kuy protéger kiy protéger ku def yaa gën a yées yaa hmm. gën a yées kiy def donc kon Waly Ndiaye moo gën a yées Pape Ndiambé mu ngi noonu sa kàddu gu mujj rek bu a defee rek ñu daal di mën a yëkkati jotaay bi waaw kàddu gu mujj gi mooy sant ak gërëm rek lay doon hmm. waaw may avant tout may sant sama famille hmm. parce que euh, problème ba mu amee jàpp nañ si bu baax a baax lu si samay doom baay euh, may sant aussi sama yaay bu baax a baax di sant aussi sama papa di sant aussi sama maam bu jigéen maa ngi koy sant bu baax a di sante aussi euh Moussa Lamer Moussa mhm. euh di sante aussi sama frère yi may àndal yëpp mhm. euh, lu si mel Cheikh Omar Fouti Tall koku mom du du du du du nekkatuñ sax ay ay ay xarit mhm. mun ne sama sama frère la ah. comme ku bokal bokkal ndey ak waze di sante wa z 10 yëpp di sante aussi euh, sama euh, frère yu may andal encore une fois ñu ci melni ñom euh Mamor État de centre Ndiora euh, Ba conseil municipal Guinaw Rail Sud. Mhm. Euh, di sant aussi Ndeye Fatou Diba encore une fois. Mhm. di sant euh, Ndeye Fatou Diba. di sant aussi Ibrahima Faye parce que problème ba mu amee ñoom ñoom ay Bamba sécurité bi mhm. hein, da leen jaral man ma quitté centre ba. agent yu bari aussi quitté centre ba. ndax lan Ndeye Fatou Diba daane su mam Cheikh su bis bu jugee centre ba ma jugee fa. donc kooku nonu gor moko fa jalé. dëgg la voilà donc moom maire mosu kaa wax nag dama lay arrêté wala dama defar daanaka man sax bis bu quitté centre dama fay quitté. parce que xam na li may xam na xam na li ma doon servir commune bi. dëgg la xam na aussi su ma fa jugee centre bi fu mu jëm. te dañoo nekk ay xale yoo xam ne bëgguñu defet. macha allah donc raison yooyu ñoo tax. que ni ba mu fa quitté sa agent yu bari ne dañ fay quitté. macha allah mu ngi noonu kon entretien baa ngi noonu maam Cheikh lañ amoon di leen jox dig daje rek ba beneen yoon incha allah.